c'est très important parce que man yow bu fekkente ne xàmmee nga par exemple Bougane mi woon il y a quelque temps te nga xam ne doon na wax naan euh, Ousmane Sonko borom loxo bu set bi la waaye ana vidéo bi waaye. Mhm. dimbali leen ma rek lu waaye gàtt gàtt rek. ñu bul fàtte tamit vidéo Birima. Euh, nga xam ne moo nekkoon jàkkaarloo. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla moom it defal na ko témoignage bu am solo. waaw dimbali leen ma ah, ana vidéo bi ah. ana mu. xaaral Nabou mooy wax ci témoignage bi. témoignage la. bi ñu mujjee wax man ak moom euh, je crois que c'est peut-être il a un nit ku bëgg réewam laa waxtaanal. nit ku am yéene ci réewam laa waxtaanal. nit koo xam ne li ko intéressé mooy naka lañu mën a def ba lii fi nekk jóge fi. Mm-hmm. Ousmane Sonko dafa ñàkk liggéeyam pour sénégalais Ousmane Sonko këram dafa yëngu ngir sénégalais. Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne lépp jox na ko senegal ba tey jii ñàkk liberté yegg ba ci santeem di yëngatu donc Ousmane Sonko a tout fait pour ce pays. c'est pourquoi. Mhm. Ousmane Sonko lépp lu waroon ci sénégalais yi def na ko. nga xam nga ni bu sénégalais yi dañ ko soxla moom. waaw ba diggante diggante bii ak bi bu bërki démb bi wax wax ji ñaari kii bokkul la wa. deuxième tour moo dox seen diggante. akir la Ousmane Sonko wax keroog ca fële ca Grand Théâtre ah looloo dox ci looloo changé. waaw ah, di délinquant xaw ma fisco. ah xanaa yi dag maa bëgg a laaj. diggante bi muy toog wal fajiri naan. Mm. wax dëgg yàlla bu kiiyee candidature am moom moom lay jàppale moom lay. waaw ak diggante xaar deuxième tour bi. Mm-hmm. la la moo changé ci diggante bi. Mm. dëgg la de ah. Eh, yàlla baax na. da nga am beneen. déedéet déedéet. amuloo ci wax. ah déedéet. mais mën ngeen wax ci moom quand même. seen seen ancien ah. patron la. kan mooy sunu ancien waaw sunu ancien patron la nag yàlla jot ngeen a jot ngeen a liggéey ak ak ak moom. waaw liggéey bu am solo bu yàgg. voilà une très longue collaboration macha allah. waaw mais nag y a que des c'est c'est c'est juste sur le plan professionnel typiquement. Mhm. moo nu moo nu tàqale. Mhm. Euh, amul dara leneen lu nu tàqale lu dul loolu. Mhm. maa ngi dégg sax. Euh, Euh, ay ay ay ay wax ci ci tontu Bougane mhm. euh, yoo xamante ne dem nañ sax ba siiti ci sama tur ne xaw ma Mamy Samb xam na li may wax et tout euh, Bougane Gueye Dany partout fu ma mën si nekk Euh, j'ai toujours di que du bien de lui parce que dëgg-dëgg lu baax rek laa séq ak moom ak teraanga mm. mhm. teraanga gi mooy li dox suñu diggante diggante employeur ak employé sur le plan professionnel dañu dem ba man gisatuma sama bopp ci liggéey bi ma bàyyi mhm. léegi nag Bougane Gueye boobu nga xam ne moom lay direct PDG wu des médias ak Bougane Gueye Dany acteur politique ñaari personnalité yu bokkul la mm-hmm. ñun ki ñuy waxal nii c'est le Bougane Gueye Dany acteur politique bu nekk ci mouvement gëm sa bopp mm-hmm. am taxawaay bu mu amoon ci wàllu politique am yenn kàddu yu mu fi jotoon na yëkkati comme nañu waxoon ne var gi ñëpp lay jàpp mm. te xale yi vaar vaar vaarum ñëpp la ñuy fàttali du fa waaye waxoon démb rek ñu fàttali lu ko tey ci cadre boobu la ñuy wax ni man dama bëgg sax comprendre ne dama sampum laaj bu <laughs> Bougane bii ma doon déglu léegi ak bu Bougane bii ban lan moo dox ci diggante bi impôt yi la deuxième tour bi la wala lan moo dox ci diggante bi dans tous les xam nga gis nga Pape Ousmane damay dégg sama maam daan ma wax benn baat nee na gis nga nit boo meree dëgg del moytandiku di jëfandikoo sa xol tey jëfandikoo sa xel politik li ci ëpp sol stratégie de communication la te ab wax boo ko munta waxal sa bopp da ngay jottali ku la ko waxal mu wax ko ci amin bi gën a rafet waaye mu gën a perspicace pour mën a dégg yow ci fi nga ko mën a waxee sans pour autant que sa émotion génn ñun nag nègre loolu mooy suñu problème dañu émotif. l'émotion est nègre la raison est hélène. oui on est trop émotif on est trop dans l'émotion lépp loo xamante ne dañu koy yëg lu nu naqar yi dafa gaaw a feeñ ci ñun te xanaa xamoo ni booy xeex ak sa noonu. Pape Ousmane de koy moytandikoo wan fii metti ci yow ak fi nga xamante ne saa yu fa jaaree ci yow rek day am day am daf lay jot parce que bu boobaa kooku day xam faiblesse bi nekk ci yow te saa su nekk foofu rek lay bës Bougane dama bokk ci ñi wax ne wa man dama gëm ne warul def politique Bougane n'a pas sa place dans la politique il s'est acharné dëgër bopp jàpp ne du bàyyi ne day politique par la force politique jigul ñëpp Pape Ousmane Cissé quand tu as une entreprise bu tudd des médias am yeneen entreprise yooyu doxal cest à que yow mën nga nekk acteur de développement mën nga contribuer ci li ngay def si sa réew ak yeneen ak yeneen sans pour autant que forcément nga dugg ci wàllum politique ndax boo ko bëggee def politique boo xamante ne lu ma waay wax tey midi ma tontu la 14 te amuloo pertinence su tontu bi mooy ne yow en voulant nekk guerrier cuune ngay mujjee def sa bopp mooy ne da ngay xeeblu sa bopp kaddu da lay yëkkati kaddu dalay wàcce mm-hmm. communication dafa am ñu ko mën. il y a un moment pour parler et moment pour se taire quand depuis la déclaration de Ousmane Sonko il a répondu par écrit on l'a lu est-ce que mënul woon yam foofu est-ce que ci jour julli bi est-ce que ci contexte bi ñu nekkoon foofu la tontu bi waree woon ñëw ak ni mu ko tontoog bërëb ba mu ko waxee loolu yëpp bu dee ci wàllu communication ndërmeelu na moom dafa xalak ko mhm. kon ce qui veut dire que fi ko nit ñi téyewoon téyewoon la réponse bi c'est simple et claire mooy demal nga fay man quand quelqu'un traite dans la foulée de personnes de délinquants si je n'en suis pas un je ne réponds pas quand Ousmane Sonko a parlé de la presse mettiwuma parce que waxul ak man pourquoi yow tu te sens morveux non seulement tu t'es mouché une fois par écrit mais tu te mouches deux fois par oral c'est-à-dire toi tu communiques deux fois pour répéter presque la même chose ou dire même des choses yoo xam ne dafay xeeblu sa bopp non la politique c'est l'art d'abord de communiquer il est mhm. important nga am une bonne base de communication nga xam li ngay bu baax lan la fan nga koy waxee ci ban contexte nga koy waxee ak naka nga koy waxee loolu day tax nit ñi gën la jox cër gën la joxub gëdd ndax Bougane lu métti métti temps mi temps bi Sénégal di tàng jër Bougane wax dëgg yàlla def na ci lu mu ci war a def mais problème bi mooy ni mu koy defee nii sur le plan communication mu ngi yàq lépp loo xam ne jotoon na koo liggéey avant te nag boo xasee ba am ci politik ay ak acquis acquis da nga koy consolider mënoo koo xamante ne presque tu étais prêt à que nga ànd ak moom pour ngeen gagner kooku falu tey en l'espace de quelque mois ce sentiment changé ñuy presque lire sax lu mel ni xaw a nduru en tuuti. loolu day tax nit ngi dañuy am problème de compréhension entre les deux personnalités comme autant on diversifie la personnalité de Bougane Gueye Dany en tant qu'homme politique et la personnalité de Bougane Gueye Dany en tant que PDG d'un groupe de médias et de presse mhm. c'est deux casquettes totalement différentes je loue et je lui respecte je le respecte beaucoup pour avoir ma liggéey ak moom te bi may liggéey moom cër rek la ma jox mhm. ma tàqalikoog moom ci cër maa ko décidé moom bàyyi ma maa bàyyi est ngi dégg ci ci wàllub liggéey rek la tënku maintenant nag politiquement parlant Bougane na xoolaat communication bu baax. d' accord jërëjëf ajaratu euh, mami Pape Assane. <laughs> guddal fan. wax feebar wax loo nañ ko bu muy bëgg doo ci may sax ñaari baat. français yi merloo nañ ko ci lan Bougane homme politique. Bougane homme politique non j'ai yàlla na ko yàlla defal jàmm Bougane non j'ai déjà tout dit là-dessus vraiment. est-ce que fii nga ko waxee woon. <laughs> je l'ai dit à Sen TV je l'ai dit je, je partage l'avis de Mami de Mami Bougane a a a réussi entrepreneurial euh, donc je, suis d'accord avec Mami je le voyais pas dans le monde de la politique maintenant nag chacun est libre de dire damay politique c'est sous sa responsabilité moom moo xam lu tax mu kaa def yàlla ki yàlla dimbali point baax mm-hmm. d'accord jërëjëf Mami Samb yow. baal hmm? laa lay bàyyee. ay ca jërëjëf mea culpa di jaajëfal bu baax a baax a baax mun na mbégte bokk ak yéen plateau bi doyalu ma sax boo amee beneen ñu dugal ko ci eh, déedéet déedéet ah danga baal ma mujjee la ah man tamit damaa bëgg a ñibbi Pape Assane dafa bëgg a ñibbi Pape Assane Pape Assane dugg nga de dem na doo doo tàggatoo internet yi sa soppe yi tàggu leen rek ñoom bëgg nañ la yàlla képp koo xam ne a ngi ñëw setaan yàlla na yàlla bette la ay xéwal yu romb sa njort te lépp jig la ak sa njaboot barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñiy toog nii di émission ka ci nekk boo génnee léegi yàlla na yàlla bett la xewal bu rab amiin yaa rabbal alamin yàlla may lu wér amiin waaw wér am na solo te te yàlla muccal ñu ci vaccin yi waaw yàlla ñu ci yàlla muccal sénégalais bu ma déggal laax ma ma na ma yàlla baal maa ngee tuub di jégul maa ngee tuub di jégul ci kàddu googu man ma bopp la maa waxal waaw vacciné wu ma ka takk si man vacciné wu. waaw wuy ma suñu yoon newu ci ay. vaccin comme tubaab bi ñoom dañoo jóg pour wàññi ñu. wàññi africain yi. dañu leen di wàññi ñu bëgg ñoo wàññi ñu ne. kon kon kon dama bëgg wax dañuy def Johnson ñoom dañu leen di wàññi. kaay leen wàññi seen bopp kaay ngeen wuy ma jox leen jox leen wuy ma dañ leen di jox initial bi départ bi. vaccin départ ñu leen dem leen ngeen produire dem leen ngeen rey seen bopp. yàlla ñu ci yàlla muccal. yàlla ci yàlla muccal suñu njiit la man ngay laaj effet secondaire lijjantiwu ma ko intéressé wu ma xulil boo ma ko laajee visa passeport ma ne la tukkeetuma jàmm na ñooy Sénégal yor alal ju jeex. nga dem fa ñuy topp ñii. yal na yàlla kattanal président ñoom kay tukki laajatuñ ko ndax yal na yàlla dooleel yal yàlla roof kattan ak doole ak mën-mën. dimbali leen ma ci vidéo président Bassirou fay Diakhar Faye ba mu mën a def fas ak ñii. tey teewu saay saay teewu jën la jën la wala laax. amuma appétit. jërëjëf yal na yàlla sàmm la ñu ngi lay jëfal bu baax a baax a baax euh, wallaay je ne je ne dis pas c'est beaux yeux waaye ma bàyyi bopp ku bëgg Sénégal la. ak bëgg réewam. Euh, c'est un grand patriote. wallaahi c'est le plus grand patriote.